naa si loolu sax laay profité dugg si président Macky Sall si troisième mandat bi nga xamante ni bëgg na ko ci kaw Ousmane Sonko ñu bëri kalkin bi ñu def mook usmaan Sonko ñu ànd dem wala ñu ànd toog xam naa loolu da nga si leeral mais noo gisee ñeneen Sénégalais yi nga xamante jàpp nañ ni. président Macky Sall ñu àndal da ngay toog def sa émission comme yow rek ñu xool si nga wax benn baat la ñu coppati benn baat bi def ko seen TikTok naan kii lan la yoon di xam xaar ci moom kii diw la lan la di xaar ci moom di la signalé yoon it di profité si signal bu ndaw boobu au lieu mu dem diglu ci émission bi ba mu jeex mais signal boobu la ñuy jël woo la ni la yaa wax lii boo nee waaw ñu indi la si ay jafe-jafe noo gisee loolu ak troisième mandat bu président Macky Sall bi. waaw loolu gis ne force yi nga xam ne ñoom ñoo yor sunu bànqaasi réew. Hmm. dañu deful seen liggéey ni mu waree. bu fekkoon police ba ma xamoon ak gendarmerie ba ma xamoon ñu man ñu xam seen liggéey lañ ci bu ñu leen bàyyeek seen liberté waaye manipulation dafa am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite ndax jafe-jafe yi am ci seen biir bari na ñoom ñaata gendarmerie ñaata gendarme la ñu gis ñu dàq leen raje leen ci loo xam ne miinuñ ko woon. ci ñoo xam ne dañu jàng def formation def dem bàngoo ci seen jaar-jaar yi mu mettee ba am seen diplôme. Mm-hmm. jaar fi ñu war a jaar yépp di def seen liggéey na mu ware ci lu ñàkk solo ñu xëy dàq leen loolu boo ko gisee. Hmm. ci ñu ñu toroxal ci yu mel noonu. Hmm. yow mi nekk ci procédure boobu dootu la jaralati ngay topp mbir ba mu sës. Hmm. donte du yoon dañ ko war a def. kon jàpp naa ne loolu manipulation la boo xam ne nit ñi nga xam ne dañu nekk ci internet bi ñuy wax ne waa kër Ousmane Sonko ñoo ñoo fees dell internet bi. non non beneen parti bi ñoom ñoo leen fa ëpp. Hmm. parce que manipulation boobu ngay wax ci ñoom lay bàyyi ko. dama koy gis ñaa ngi di xaar ci léegi bu ko defee ci loolu la sukkandiku di di convaincre nit lu ku mel ni Assane Diouf convoqué nañ ko fi di ko laaj ndax yow yaa wax lii wala yaa yow ngay jàkkaarloog nit muy wax. Hmm. ngay jàkkaarloog vidéo vidéo nit diglu ko ba noppi. dem tëj ko ci biir kaso bi daat ne nañ gëstuwaat ba am yeneen source yu leer te yow yaa ngi hmm. jàkkaarloog nit ki kon loolu dama jàpp ne réew mi li fi nekk lu nu war a jeexal tàkk ndax awatul yoon jaaratul ci yoon Hmm. ci ni ñu koy manipuler. bu ko defee ci troisième mandat bi nga wax. Hmm. Macky Sall dafa bëgg. ànd dem ba ànd toog. oh dafa bëgg oppo opposant bu mel ni xalifa Sall. wala hmm. Karim Wade. opposant bu mel ni Ousmane Sonko arrangé wu ko. ku mel ni Karim ku mel ni Karim Wade bañ ko exilé ba léegi déggoo ko mu wax. gisoo ko ci réew mi ñi ànd ak moom rek ñoo naan daa fa war a ñëw yaakaar naa lu matul huit mois neuf mois bu ñëwee est-ce que mën na wax lu convaincre nit ñi. est-ce que mën na xam jafe-jafe sénégalais yi. wax mbiru Karim Wade jàpp naa dañ ko war a teg Khalifa Sall nit la koo xam ne gëw ma ne nit ku am fit la. Hmm. ñàkk fitam mi ngi koy tàmbalee ci depuis ñu ko tëjee ba léegi mës mënoo ko gis mu taxaw wax lu mën a convaincre sénégalais yi wane ne kii opposant la lii mooy mbiram. Hmm. kon opposant yu mel noonu la Macky sàll bëgg léegi nag moom du moom moo ñuy tànnal kuy dem élection <laughs> wala ku demul ndax moom moom moo ko wax de ah, ah. moom moo ne moom gor la hmm. moom moo wax ne nit la ku fonk kàddoom bind ko ci livre boo xam ne moom moo ca wax ne mi ngi ci mujjantalu màndaam wax ci wax joo xam ne tey bu wax jooja dañee rek kon la mu wax moom ne moom gor la kon Macky Sall moom nekkatul gor nekkatul nit ku diiñ ci kàddoom ndax moom moo bind livre wax ci ne mi ngi ci dernier mandat boo xee ne day def troisième mandat waxee ne day def troisième mandat mm-hmm. boo xam ne day def troisième mandat. jàpp naa ne kon mbooleem lu mu waxoon rek. tuxu na. fi mu ne nag ci làmbatu la nekk. ak ci essayer. bu neexee day jàll bu dëgëree mu taxaw. waaye dama gëm ne li ñuy wax oppos opposant sénégalais yi dañu war a génn. taxaw taxawaay ba ñu taxawoon ci jamonoy 2012. Ah, ba nañu booloo woon daan dem place nañu booloo woon 2012. Hmm. nga xam ne ci mujjantalu Abdoulaye Wade na mu yoree woon sunu réew rafetlu wuñ ko woon. Hmm. ba wax ñu bari wax na ne Macky Sall ci jàmm la jotee ci réew mi Macky Sall jotul ci réew mi ci jàmm. Hmm. ndax Macky Sall Ablaye dañu daan bunduxatal xatal ci jamono yooya di doxal mbir yoo xam ne ñëpp ci place de l'indépendance fa lañ daan taxawaalu ay nit di fa dee ay jafe-jafe di fa am. Hmm. ba ci noonu lañ follee Ablaye Wade ñu fal ko moom Macky Sall. Hmm. mu xamoon jafe-jafe réew mi. xam fa réew mi tolloon amoon. courage bëgg ñoo jëlee ci situation boobu waaye dafa toog génnaat ca ba set ci wecc nekk ci mbiram yii toog na benn mandat mu jeex mu laajaat ne ñu ko joxee mooy seconde mandat hmm. ñu joxaat ko ko mu toogaat jeexal na. Hmm. dafa war a organiser ay élections yu leer naññ. du moom moo ñuy tànnal kuy dem ak ku demul moom mm. toog na ba jeexal na dem ci jàmm ak salaam na dem ci jàmm ak du ministre l'intérieur bii fi nekk sax man awma ci moom confiance ngir mu organiser ay élection mm, ngir bu melee ni élection yi 2019 yi rek mm. daanaka Sénégal jërëtul ñuy fal di fol affaire royaume kon mën nañ ko fi installer mm-hmm. te jàpp naa ne bu fekkoon Sénégal affaire royaume la Macky Sall kon du nekk royaume du nekk royaume